njiitu réew mu Sénégal nee na dina sukkandiku ci dogal bu conseil constitutionnel jël ñeel dàq bu ñu dàkkoon jongante falum njiitu réew bu atum 2024 waaye kuréel bi ñuy woowee aar suñu élection di wóoyal xeex mi ngir ñu amal jongante yi. ci seen doxub ñaxtu bi ñu amaloon ñu mën faa nemmeeku ay tàkk der yu bare. ay mbootaayu société civile ay syndicat ay personnalité indépendante ak ay waay politique yi nga xam ne ni dañoo fare ci aar sunu élection dox li ko dalee rond point Cyprès ba rond point Liberté 6 ngir jongante falum jiitu réew mi ñu mën koo amal nu mu gën a gaawee. di ñaan aussi état bi taxawal rapidement date bu nga xam ne nii dinañu permettre ñu def élection yi ci courant du mois de mars ba le 2 avril prochain ñu def passation entre l' ancien président et koy ñaan. qu'il se mette à la hauteur du Sénégal bu ëllëgee ñu mun ko sante loolu. ñu yor ay drapeau réewum Sénégal sol ay yére yu ñu xaatim aar sunu élection mu ngi mel ni wootewu société civile bi ñu bëri ci Sénégalais yi. dem nañ ko wuy sama ñëw rek spontanément parce que tàmm sa def marche c'est la première fois def marche dama gis à la télé rek ma ni taxawal ma ñëw mais de façon déterminée waa parce que aussi man bëgguma injustice lépp lu jub lu yëpp luy nit di dox te mu ne jub nekk sa ak dëgg damay ànd pour wax tamit ñi fi nekk que ne peuple bi mu ngi continuer di di di di watch quoi di leen bàyyi xel. ci benn déclaration de presse bi nga xam ne ni moom lañu def plateforme yi mouvement citoyen ak organisation société civile yu bokk ci aar sunu élection diwoo woo yi nekk ci gox goxaan yi ngir ñu mën a wóoyal seen doxum ñaxtu ndax jongante yi ñu mën koo amal balaa mandat bu ñu nattal njiitu réew mi di daal di jeex.